wala ni nga def ba xaar fa yow mënoo ko liggéey léegi man dimbali ma yow xoolal xar bi ne ma gaañee nga naan ay xuloo bi nag dam dam dam si man dara boobu xoolal ni ma def sama tànk bi xoolal ni mu xoolee sama tànk bi xoolal lii ay waay di tayu ko dimbali ma yow tamit nga ne man tayu ko ay waay jëlal ko da nga da nga sikku trop waay yow eh eh sa tàcc yi ngay bàyyi nga mel ni ku ne si tànn bi waaw jàppale kii nga mu yóbbu xar yi ni ñaare jàppale sa kanam yi tamit nag man nan laa si jàppee xar nag dégg nga li nga wax ah doo jàppale sa si xar man maa nga jàppale man nijaay nag man maa koy jàppale. man laa jàppee xar man nag nijaay ma yee ba yàq ak yow sa nga xamal nga ni sama téléphone sinap ba pare. ma yeewu yaa xar mi utal nga dugal ko. sinap bi wala bàyyi ma dama nga dugal ko si néeg bi fan. a a moytu nga nag moytu ma. ay yow ma parce que yow boo yow sama tabaski bu méttee yow yaa ma ko yow bàyyil kii nga naan hee hee hee rek sama tëb bu méttee yow yaa ma ko xañ yow xam nga li yaa ma njëkk a daaneel yow yow yaa ma njëkk a daaneel yow yaa ma njëkk a nattu yow yaa ma njëkk a fen yaa ma njëkk a si fere yow yaa ma njëkk a fen yaa ma njëkk fen si fere sama dama na xaw ma nga sama xol seddale <laughs> man sama yoon ñëw ko jëndee maa seeru bu ko jënd ah nijaay ku fi dee yéene ko ah, rek nijaay tamit nag waaw xar yu jigéen am nañu ko am nañu koy tabaskee de ndax boo amul góor moom man ngaa tabaskee bu jigéen xalaat naa mën si gis client de xar yu jigéen yi ma si gisee client moom wa xaali wa seen sama waa ji yow teel ngaa pare de wa xam nga lu ma jaaxal waaw yow dangaa juum envoyé ma xaalis ma ne waa man seen mii xanaa dafa am ku ma war na envoyé xaalis nag mu envoyé ma ko mbir mi nag jaaxal ma lool ma ne nëgal jarul may woote naa dem kii xaalisu jàmbur boo demee moom lay envoyé waat loolu sab xaalis la de xaalisub kan. li ma la envoyé noonu. waaw. juumu ma de. lu tax lu nekk sama xaalis kenn. man maa man man dag ma envoyé juum. waaw ma war laa jox xaalis boo xam ne damay mottali sama xar mi ci biir pour jël ko. waaw ma gisee nga envoyé ma xaalis ma ne kii dafa juum. léegi nag xaalis boobu laa booleeg man xaalis bi ma la doon fay see pour jël sama xar mi. xaalis taxawalee taxaw non juumu ma loolu. waaw sa xaalis la. doo la déggoo li ma la. nu nekke sama xaalis. xar mi ma la fi bàyyi loon. waaw. yàlla moo dogal xar mi dama ko mujjee jaay. yàlla moo dogal dama ko mujjee jaay dama ko mujjee jaay waaw jaay jaay naa ko de ndax xaali yow manoo ma manoo fee bàyyi ñaati xar nga fi bàyyil woon ñetti xar waaw avant yow ma la ñaari xar waaw boobu ba léegi benn bi toog fi di xaar ma jox la avance am waaw mais dama yaakaar ne pare nga si dama yaakaar ne pare nga si jaay naa xar mi de jaay naa ko de seen xaalis boobu xam nga ne xaalisoo xar bi xar mi bu ma ko pare woon dinaa yónnee sama xaalis nga jox ma ko. waaw xaalis loolu man loolu. seen mënatuma si dara. seen mënatuma si dara. seen ginnaaw ba ñetti jabar nga amoon jox nga aawa jox ñaareel. man loolu moom si laa bi na xaar rek. déedéet mani mani seen su ma joxee sama aawa jox sama ñaareel. ñetteel bi am xaram ne fii. xaalis bi matul. ma doon xaar paap. ah dama yaakaar ne woon da nga mujjee Espagne paap ah. paap laay laa xaar. dama la déggatul ma yaakaar ne nag da mujjee bàyyi baneen bi ma jël xar mi jaay ka sama benn mbokku taalibe fi jaar rek fi ma daan jaar la ma jaar xam nga man Cheikh Ibrahima xam nga yaa ngi reetaan nag dama reetaan xam nga ne yore nga bari ah. caaxaan nag seen nag laa déedéet ah, xool fii xar jigéen yi kase fi des xar yu jigéen yi kase kase kase ñoo fi des bi may tabaski sax dama ko dénkaane boo bëggee dénkaane yow da nga nekk si man ca yow caaxaanu billahi maa ngi samay dëgg de. seet nga mën a jëlee xar mi di ko jaay tama jox la xaalis yaakaar ci yow gannaaw yàlla ak yonante bi yow nga yaakaar gannaaw yàlla ak yonante bi nga teg ci Cheikh Ibra ma ñëw wax la ci jëmmi Cheikh Ibra nga jox ma xar mi ma ñëw teg xaalis sakaw kaw kon yow gëmoo Cheikh Ibra jaaraat si bàccal jaaraat si la jaaraat si tëbës ci ko a laal jaaraat si dama ne la gëmoo Cheikh Ibra ndax boo gëmoon Cheikh Ibra doo jël xar mi di ko joxe Cheikh jaaraat si jaaraat si yow bu ma la toppee jaar APS jaar naa fepp waaw yow seen seen yow doomeeraam nga yow man maa ko wax man bañu ma ci dara maa tay boobu yow baaxoo yow toog fii bàyyi yow xaalis loolu xaalis la juumu ma sa xaalis seen yow baaxoo yow ndekete ma la ameloo ma yow gëmoo Cheikh jox naa la sa ñaari xar ak sa beneen bi ma jox yow gëmoo Cheikh Ibra waaw boo gëmoon ma la ko addiyee Cheikh Ibra ma koy jox ba tey mais yow gëmoo ko dese nga koo gëm li ngay wax nekkul ci yow. gëm ko moo tax ma tolloo yow fii gëm séeréer moo tax ma tolloo yow fii. te bu ma si dépassé nag yamal foofu. yow boo nee dépassé day ma la. yaa ngi Patte naa la maa ngi nga. Ah. dépassé ma lu weesu loolu. am naa déception seen. am naa déception. di ma manque. xaali di ma manque. xaali yaa ngi may tooñ de. la ma tab bàyyi dindi sa ay ma waay yow. yow ak fayda seen baaxoo ak jabar mënaloo leen dara naan ay leb rek yow koo la gën a bon. maa tay da ngaa fàtte ne yow bi nga tëlee maa la yóbbu nootoo faj la sa Albert. maa tay yow daawoo jógal dama lay suturaal seen seen yow tiima yow ti yow tiima kone xam nga ma yow baaxoo. jógal fii doo tabaski de xam sam ñetteel du tabaski de ari jigéen ñi daal ñoo fi des. boo bëggee nga jël boo bëggul nga dem sa yoon man sama yoon newu. ngóoraa gën a baax si góor te dama la ko utal. ñu dem ba si Albert Morola ma utal ko. maa tay de ma daawoo yow boo jógalee man la. doo tabaski de. Eh, teg naa lépp si loxoy yàlla. Ah, yow na la noppal doo tabaski de. seen wax jeex na jeex na wala jeexul seen kenn teew la man jeex na. jeex na waaw xam naa li nga bëgg da ma bëgg a xaañ du ma tabaski man tabaski ji ku ma tooñ baal naa la ba tabaski ji jàll la doo tabaski de wee wee doo de aan nii naa la may xëtër yi nga may gasab ñetteel boobu xëtër yi bàyyi boo tabaski de man tamit def naa erreur de waaw ah. sa jàmbur xar yi si man mais baax na te moom moo dugg si lu mu manul kañ maa ngi rek mais waaw ah. lii de bu ma ko dóoroon xalaat dama doon sóoraale nag aka maa muus dama këba doon bañ a dóor ñu ma yóbbu kas kaso may tabaskee foofu mais man naa ko kaa dóor maa bàyyi noonu rek mais baax na xar jigéen ñi daal ñoo fi des bu bëggee ñëw jël bu bëggul toog man sax amagu moom ma taw si man da booy maa ngi ñànga mel ni gaynde lu ma watoo si barlaam sax ko waaye maa la gën a ñànga fay tabaski fii mu toll nii ah, man day xalaat naa ba sonn xaw ma na laa war a mën a def bàyyi amoo si pexe ah aw ma pexe de maa ngi doxantu gàlle di ko xool ruqa-ruqa sax ndax dinaa gis xar mais looy dee xar non ah saa yow man xar dañ koy caw rek après ñu caw seet nun ko corsé si sawaay man a ah, naar bi waaye naar bi ba si jël sa xaru gàlle di ko yóbbu. waay booy man de xalaatuma loolu. man naa yaakaar de. man de paa bi instant bii nii jëndal na ay jabaram mu ngi leen di di kurti kurti ba gis naa ko mu dugal kër ga benn xar boo xamante ne ni moom. sa gàlle am na xar. sama gàlle waaw gis naa ko benn xaru ay cent cinquante mille xaw ma cinq cent mille daal sori na de. paa bi kay xaw ma fan la ko lijjanti. non jaratula xalaat moom kañ leer na. mukk xalaatuma loolu de. lan. yow paa bi coow ma topp a bàyyeeku ma may def loolu. dañ koy gérer assuré ka ñëw xëpp ko xaalis bi kan ak kan mooy gérer waaye man see assuré jarul sa ngay lijjanti kuy gérer assuré na assuré na booy xaru 500000 la tax xam nga ne bu ma bu ma cawee 500000 la ma ko xëpp man ay millions moo ne sama xel instant bi ko say nga naan kan ay 500000 bàyyi ñu waaye naka dal man ragaluma lool de man naar bi sama digganteex moom jusqu'au bout dee rek bul sax bul sax xalaat bàyyi eh eh eh aw kaay wee ah mana xaw ma papa caaf xaw ma isnaal réglel dégg naa aw ak bandi laa jógte ça va xam naa la ma laa yëgal pour régler sa baay du kurti kurti ba am am xar eew ko fii uddi si jim pexe waxuma loolu de aw aw leen wax ñeen ñaa ñëpp maa ngi leen a dégg maa ngi seen ginnaaw ee na ma tax a bàyyi li ma doon jënd aw joxoon na ma na ñaari junni u jox ko sa gis na ma ko une joxula ko dara. waaye moo la joxuma ko dara aw ba ba ma fontoo aw dinaa fenn joxuma ko eh, dara may koppar génn ko aw daxaa la carte man aw daal léegi aw lii sa xarambaay mi laa kii moo koy def loolu moo la koy digal mu la man le ko or nii ab ah, jeexayam is naa le ma ñaari junni teg ko sama loxo dégg naa si li ma la kaa la jox weccit ñaari junni li moo si des aw aw toppal ne la jàllal unaan ñaari junni man moo si des sept cent la baax na réglé leen seen bopp ngeen bàyyi carte gii nii en ñàkk neen fay do aw sa mi nekk kër ga ka aw dinaa ko diggaale fam ba sa baay manul dara si aw dina ma la wéeri sañ ba wam xaaral paa su ma moon poison la ma koy jox. jaru ko paa bi bëri nay wax bu la jàppee aw aw aw aw aw da ngay dem ba sa bopp bi lay perte. Eh, xam nga la mais déglul ma la man de boy mu ngi bëgg a ñaaw de. du ma sa ñaaw xam nga ma boy. général Gueye laay seeti mu jox may ñaan ma bàyyi naar bi. booy lii dafa assuré jarul ay général ak ay tamit xar mi siiw na ba pare paa bi xamoo ko du nettali mais lu mu yëg da kay toog di ko waxtaane ñëpp jot. demal sa gaale naa la woo. balaa mu àgg ñu eh, demal gaale. non bàyyi toogal bu ma eggee naa la woo. wala jëm bul dem kaay. yow boo naar bi man nga nar a jël ndëkk tay la maax naar bi man may bàyyi. yow yoroo dërëm yow seetloo man maay sàcc sama xaalisu papa maay sàcc di andi ngay joué rek yow loo ma sa andi. li nga yor lan la. teel 700 yi man dinaa gérer lii si des teel. teel 700 waaw kii waaw jal eh, eh, jal eh, yow gisoo sama appel yi kon xayli oowu laa ma ah, kañ kon boîte vocale la man boîte vocale aw ma oola ba sonn fa mu dugg indi ma anga fa sa des waaw xayli bal ma taw waaw yow gisoo ma woola téléphone gisoo sama numéro dan na ma angi fii moo tax ma ñëw waaw man kon boîte vocale laa dugg boîte vocale laa dugg woo naa la waaye kon jotuma la kon boîte vocale laa dugg man kay woo naa la woo naa kay gis naan may appel waaw te wéejëy naa xam na yónni ko ba fekkente ne dafa am soxla. xam nga waaw ñëwal ma wax la ñëwal kay. waaw ñëwal rek déedéet déet am na laa. déedéet boo gisee ma lay wax dëgg naan la dama la soxla. aw la 15 laa ma waxoon. waaw. te tabaski ñaari fan si des. xam nga jàll tolof tolof doomu aadama da koy dund. gis nga Penda Penda Penda Fall mii. Penda Fall Penda Fall. borom këram bu ñuy wax pap pap ñang pap ñang laay bu caaroy mooy jëkkëri Penda Fall. oustaz Baytir mii nii kooku rek la mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy taalibe bu mag bi léegi nag moom moo ne ma dama lay yónnee sa xaalis léegi nag man xaalis boobu ma mooru yónnee barki Seydina Limaamu su ñëwee ma fay la sa xaalis dimbali ma rek mais daxaa ma waxoon la kees te tabaski des na ñaari fan mais ba fekkente ne aw loolu yaakaaroo ñëwul ba ma la euh, euh, uyu man oonaa la xaalis xam naa ma kër oonaa la wala uyoon ni mu ñëw si kër waxa man oonaa la uyu woo naa ma oowee kon bu avocat la ak nit baa waxee wax sa moromam gor. waaw ka kaa sàmm. man ñaar fukki junni daa dala dara si man. ba ma la ko joxee kay ba fekkente ne jekku la wax ma ne jekku laa ka moo gën uddi ma wër-wër loo si dëkk xam nga xam nga xam nga man aw ma ay caaxaan. xam nga aw ma ay caaxaan. lii ma la wax rek moo ci am. liw tànke yu jógee nii tànki caaxaan la de. déedéet. ah kay. Pape dina ma yónnee su ma yónnee. ma ne Pape Niang ak Youssou Niang ak Ibrahima Niang si yem. may ko par bi ma kaa jox Pape Niang tudd laa kësi waaye moom de kooku Tall laa waxoon na dina la joxi ko Moustapha Tall waaw ah Moustapha moom tamit xam nga xam nga tamit liy début man tamit waaw léegi tey Moustapha Tall angaman pal waaw waaw mais Moustapha Tall mais may koppar ba naka ale jox ma Moustapha Tall ma delloo maa demba ak maa demba ak sëriñ ñoo ma tiriande rek ñoo def fi ñu la moom yow ndax nekk su ñëw waaye baa ma abbee daal may koppar ma jox la ba fekkente ne jekkul laal ñëwal ba si man o wax ma maa aw yàgg nen kenn du ma dee gax aw ndigee ñaar fukki ba doon téeméerit ba fekkente ne lii wulaaka moo yoon newu si. mais u wax ma jal bal ma wër-wërloo. jal du ma la nëbb du ma la nëbb gis nga soxna yi barki Serigne Moustapha Dia wallahi angim ñaari xar kese laa fa yóbbu muy aw bi ak ñaareel bi. ay aw jënd naal ñetti xar aw matal naal ba yàgg. jal man jënduma ñetti xar jal barki ba jal des ne rek yëpp man nga dégg man inne lii naa ku dee ak sa bàmmeel sama bàmmeel laa taxaw di wax ba mu doon ñaari xar laa amagul aaw bi laa utal ñaareel bi ñetteel bi ba léegi may wax ak yow barki mam Moodu Fall yoruma xar mu ma fa yóbbu wallahi azim Moodu Fall de daawu ko caaxaan waaw du ma ko caaxaane yoruma maa ngi nii wallahi ñaar laa ñaar kese laa yor fële aw ma lu ma fa yóbbu fi nii ah, ñaar laa laa la jëndi des neer doo ku bàyyi jesneer jigéen ñi ñooy sagal seen bopp di wax dañ maa utal jesneer man utaluma kenn jesneer ak soccu bi utaluma kenn ñaari xar dong la yor boo moytuwul ñetteel bii dinaa ji ma xool nu ma waxtaanee ak moom mu seet nu mu def kër kër waa juróom. la tax loogu jàll aw ma ko ngi ni loogu dal ak yemaale. ah u yorob aawa yorob ñaareel yorob ñetteel u yóbbu ñaari xar kër aawa ñaareel u kolo kolo geneen gi u yóbbu. fi mu toll bu wallaahi fi mu toll suñ ma dimbalul li ngay wax ni mu Tall ak ay ay ñoom pap moom pap pap pap ñang bi ma la wax naay bu caaroy buñ ma dimbalul booba du ma tabaski yow nag xaw ma nag sa xalaat léegi man may koopar naakaa def buñ tabaskee nga dimbali ma rek ngir yàlla gi yonante bi ngir jëmmi sëñ Touba rek ba tey baax waaw buñ tabaskee ba pare ma jox waaye gis naa collège collège man collège mu dëkkandoo boobu sa dëkkandoo bi waaw waaw yor na am dëng ma daw tëngam lan. am xar bu ndaw. waaw xar moogu mën naa doon xaram ñetteel. bu yam na. waaw ah jekk na de. waa nu may def moom te ginaar coofu cere rek. fi toll gi bariwul it duuf na. waaw nu may def ak moom. daa kaa ji ma gis. ma waxtaan ak moom. waxtaan na la moom. bala ko bala jox ba tëbës gi ci passé. waaw wala ulli final ko dara la mu téye si loxaam rek. waaw loolu moo gën sax. xaram tabaski boo koy leb da ngay jox borom dara. sab ñetteel boobu baa ko utalulam xar ah ni moo rajje a noonu da dina ah, dégg pekk de boo matul ak demam xaj na si. boo matul day divorcé. kon nag ba ka dara. li man moo la demal gis collège. bakk na nag maa la ko wax. du ma ko ko wax. moom din ma ko o am la ma ko layam ma dem fa rek. dem fa balaa bu soobee yàlla balaa ji ginaar mën naa cof ceeb. ba bal na balaa tabaski ji ñaari fan si. waaw kon doo ñëw ñu dem nga nga. a ah, ah, nan dem dimbali ma rek yow tamit dal xam nga jullit day jàppale moroomu jullitam. waaw oh, manuma laa seetaan waaye ba ba la ooyee uyu. waay mais. yow jéem a xar mi yow tamit. ay kan dem waaw jéem a yéen jéem jéem dem mu takkal kali jox ko ngooñ. yow lan nga mën a yóbbee si collège kon. waaw dama ko fa yóbbu pour mu mu tali la. waaw doo ma yóbbu ñaar la am ñett ñett léegi doo ma ko yóbbul bëccëg gi yóbbul ma ko fa. yóbbul ma ko fa waaw xaali aw la la dal. yóbbul ma xar mi mënoo ma kaa yóbbul. dafa am fa ma jëm nii aw la ma la doon lijjanti lijjantil na ma la baax na yow xar mi dafa ma nekk ka xeeb aw dafa ka xeeb ni ko ah, xoole ni lii am na ñaari bay jën gisoo ma fay xool xool tànk kay. bayal tànk jàmbur. ge ge gen bayal gen waaw bayal gen ak jàmbur bayal gen gi mat na bàyyi gen gi yow teel sa gen rek nga bàyyi gen gi ah, mais baax na baa demee takkal waaw léegi xam nga nu ñuy def bu demee su demee waaw nga dugg si biir nga takk ka man ma taxaw xaar si biti gannaaw yàlla waaw léegi man ak yow suñu kóllëre nañ dem si buñu demee nga yeewal ma xar bi bu la boo ko laajee nga ne ko xaalis dafa dafa génn waaw déglu xam naa parce que lii man mënuma laa yóbbu déglu ma gis naa yée waaw bàyyi kam xel di matal naal bii baa ko takkalee ñetteel bi di matal naal ñetteel mat na waaw baa méttul dinaa manqué la beneen. ndax lan. wii ak copain googu moo àndal. waaw moo la koy def lugu. xaritam bi rek raan waaw. isacca la ñoo jugte seen yoogu ñoo fubal si téléphone yi. waaw naar bi. di si gañee koppar. waaw sam xar la ñoo jekkal. maa leen gis waaw ba ma jinda bi di classe bi dig bi maa taxaw ni gis leen. wéy day la leer lam laa wax nag. li ma daj ci tabaski 2022 bii. ottul sam xar ma ko su fekkente ne daf ma bëgg a xañ am xar. dinaa ko lawal weer. di di su ma la waxee dinaa ko tiire bal nga gëm ko. su ma koy tiire bal ndax am xar sax. dama ah, tëdd dinaa ko def maanaam tuy wéere daanu. wala raan daanu ñoom ñaar ñooñu ñoo la sàcc koñ bi li ma leen dégg ñu wax. baal ma nga mën na dax am fa ma jëm ginnaaw ba li gën dina ma la ba tëbal ci weesoo. ujub lu si man. waaw kon nañ ko bàyyi mu dem. waaw waaw déedéet. aw yëpp déedéet dama bëgg nga téye ba xar ñu dem. bal wax loogu bal wax loogu xar mi su ma mën a dem dina dem yaa bëgg aw lii ma leen lijjanti rek waaw collège damaa lijjanti ji ak koppar ba ma jëw tekki si juróom ji ni tekki loo xam moo gën kon li mu tuutee tax na ngoo waaw waaw déedéet ba la tax tuuti ni man tam tabaski ah li baax na am nay béjjin am na lépp bàyyi béjjin ah, yi waaw waaw bàyyi béjjin yi waaw yóbbu ka rek u jokk takkal ka ndax am fa ma jëm nii boogu ba léegi ma téléphone ma ngay soñ aw aw la ma doon lijjanti kay lijjanti na ma la ñu def noogu ku takkal ka am lii am téere soxna si eh, da nga gis bintu foofu bintu gisoo ko foofu doo ko wax doo ma ko ol mu ñëw xaaral ma xaaral ma xaaral ma xaaral ma ko yóbbu da ngeen xam bint ba léegi xamoo leen ma man seen baay laa waaye dimbali ma nga xam ne day tëbëski parce que bàyyi tëbëski leen bu leen ma dépassé de waaw ma dépassé laa leen ma dépassé ay eh, eh, taxawal Fatim Fatim Fatim taxawal bul dem maa la woo boo ma séenee looy looy duggaat si biir ah na def baa yaa ngi am jàmm waaw kii bi laa la doon xar mi fi mu toll rek aw ma jot damay génn ni damay dem maa ngi jëm ba ba maa ngi maa ngi jëm ba fële euh, biir laa yem man soo man soo ja man soo ja laay dem seeti. xar mi bu ma ko doon saraxe dina egsi si yow. xaru lan la kon. tabaski ji na la nii di saraxe lu mu amagul lii la am kës néew nga ne ma ndax dañ koy saraxe xar xanaa bi ngay saraxe rek waa benn sëriñ déggalu ma nag pour ma saraxe lii pour tabaski la sam xar la sam xar la yow man waaw man maay tabaskee lii lii tabaskee woo ko man Fatim maay tabaske lii lii ngay tabaskee parce que lii laa am dama ni koy saraxe dama ne la man saraxew ma kenn digaluma lu may saraxe ba nga may saraxe kuy kuy saraxe dana la dan da da ngay dañ lay digal saraxe dama ko jënd jënd ay moromam cent mille francs laa ko jënde yoruma loo xamante ne nii mu ne ni ma ko jënde ay moromam rek laa ko jënd sam xar la yaa ko moom te lii nga mérito nag ah, moom nga mérito waaw gàttew ma noonu wërsëg lii man tabaskew ma dama ne la sama ñetti jabar yaay ñetteel yaa si gën a tuuti lii nga mérito moom nga mérito te moom ngay tabaskee. gum gii nag damaa bëgg nga téye ko. lii laa mérito lii laay moom ngay tabaskee la nga waxoon la nga waxoon mi ngi si man. da ne ma woon loo am sa yaay nga koy yóbbul ndax sa yaay moo la gën a loo mën a am. sama yaay laa koy ah, kon yow loolu moo kii sa xol bi ba nga andi ma sa liir bi. dama ne la kii di yuuxu naan mbay jëlal nga dugal ko si biir nga dimbali ko. du ma ko ma jógee moom dafa sori. du ko laal laa boo ko boo ko laalul dama koy bàyyi mu dem. teel barki Serigne Moustapha Dia boo teewul gum ji dama koy bàyyi teel nga dugal ci biir teel nga dugal ci biir teel kii bakken la yor comme yow moom nga mérito. moom nga mérito bi bu dama ne la eh, beneen bi eh mënoon andi lii bi bu mu ñëwaat. ba ngay wax ak man naa man lu ma sama yaay laa koy yóbbul sama lii laa am. te beneen bi mooy. xoolal déglul beneen bi mooy. teg nga ma boo koy lottal. lu mu tuuti tuuti tuuti sama ndawal la te nag ma si tuddaale na te xam ne man la woon man boo non dama lay wax rek booy lottal nag ma si yóbbaaleel ma si sama tur. doo ma si tudd. ndokk ndokk moom nga waaw moom nga méritool gisagoo dara waaw gisagoo dara sagam loo am sa ndey nga ka yóbbul man li ma am tuut yow laa koy indil nga bokk kaak ak sa ndey waaw jëlal mu ngi baax na ndokk baalu àq di jox seen wàccuwaay kenn ku nekk muy góor di jigéen di mag di ndaw di wax ne rek euh, ci li ñu jëm nii muy tabaski sunna la boo xamante ne nii yàlla moo ko dogal si suñu maam Ibrahim koro ba mu ko joxee ndigal pour mu rendi suñu maam Ismaïl jotu ko rendi ndax yàlla si boppam moo jigaloon malaaka mi ngir mu jotalee maam Ismaïl am xar ngir Ibrahima door kaa rendi ba mu dawalee paaka ba xar la rendi xar ma mu rendi woon nag critères yi wala maaw yi andi hmm. dañu wax ni xar mu mat lay doon hmm. bu matee at wala juróom-ñeenti weer ba juróom-ñett hmm. am taxawaay mat sëkk bu ne xar mu mag nag waxuñu xar moo xamante ne dafa gumba wala xar mu laggi walla xar mu luu boo xamante ne mën wax mbee wala xar moo xamante ne gen bi dafa gàtt xar yooyu matul tabaski xar yi mat tabaski mooy xar moo xamante ne suur na ni ki bii tànk yi mejjul bët yi mejjul bajjini mejjul genn gi it gudd na xar yooyu moo mat tabaski waaye xaram un million xaram cinq cent mille xaram deux millions si puukare di wane ne ma ëppam xar loolu yàlla teguñu ko beneen bi moy sauvage desner tànkab peccor gaax tànkab maam loolu bokku si yooyu aada yoo xamante ne nii dafay diisal diina ji te diina lislaam diisul kon loolu mooy tabaski tabaski sunna la ku ko amul nit jarul bor di la si topp ku am xar moo xamante ne ni mat naa tabaski nga nga rey tabaski def sunna li comme ni ko yàlla waxee yonent bi mu di ko def hmm. sallallahu alayhi wa jarul lépp ay bor jarul dóor jarul def leneen li yàlla sant ab jaamam diisul bu ko defee si nim mu ko war a defee kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy doon li ñu doon wax si tabaski ji juste pour nit ñi rek ñu sensibiliser ñoo xam ne tabaski yenn coono yi jaru ko kon xaali waaw kon euh, asalaamaaleykum mbokku àdduna asalaamaaleykum mbokku Sénégal ah rawatina diaspora bi nga xamante ne yéen a ngi doon safoo di ñu seetaan ci li nga xamante ne euh, tuuti na kës ne waaye nag euh, tooñ la yéen bi ñëwagul ñu nag yéen ba si kanam di ngeen gis ak beneen méthode boo xam ne mooy gën a mucc ayib mooy gën a neex si yéen. incha allah si kàttanu yàlla. waajal tabaski la tuddoon doon daw sunu seen. sunu film. sunu film waa dama juum. sunu film sunu film. Oh, kon. boo leen gisee mu neex ñi ñaa koy laaj ak waru la arrêté juste rek moo waral vidéo bi di am képp ku ci abone ku seetaan abone ñi nga yéen ay yeneen surprise yoo xam ne bu soobee yàlla di ngeen ko seetaan te di ngeen gis seen bopp incha allah donc di remercier ñi nga xam ne tamit aussi ñi ngi doon seetaan ak di aimer di envoyer ay message di ñu encourager di ñu ñaanal di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla yokk sutura ñu wàññi njëg yi yal na yàlla yokk wir gi di profité waale si li nga xam ne mooy dund gi ak njiit mi nga xamante ne tey moom la fi yàlla teg yal na yéen bi oyof ci moom waaye nag ñu gëstu askan wi nga xam ne tey yàlla dogal na ni ñu ngi téye seen ngor ak seen man-man donc ñooñu mënuñu dara lu dul rek jël lépp tekk ci loxo yàlla di ñaan mm. Sénégal nag yàlla na jàmm sax ñu ngi leen remercier bu baax a baax a baax muy sëriñ si muy jóori muy paa ak maire yi basketteurs yeeg bàyyi ñu kenn képp ku doon seetaan li nga xamante ne moom moo tudd waajal tabaski ak gune yi rek ñu ngi leen di gërëm di leen sant nag rawatina yof gépp ak tóngoor yàlla na jàmm am yàlla na jàmm sax ma bàyyi sama yeneen euh, euh, xariti naataangoo yi nga xam ne artistes yaa ngi ci ginnaaw ak ku ci mel ni euh, Wiz ku ci mel ni Saka boor a ngi noonu ak sunu jigéen Fatim aca bismillah waaw mais salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina di baalu ñëpp àq nag ci tabas tabaski bi ñu jëm daanaka ñëw na ba pare ku gis lii nii xam ne daanaka euh, tëjuñu tëjuñu suñu ay sketch si ñu su ñu film parce que tey tàmbali nañ liggéey bo xamante ne Sénégal gépp ñoo koy laaj àddina gépp ñoo koy laaj kon ñu nag yéen ba jusqu'au bout donc di leen jox rendez-vous ci yeneen sketch yoo xamante moo gën a doy waar li parce que lii échauffement la woon wallaahi lii échauffement la woon xam nga gars yi ñëw tooyal xaftaani équipe technique bi nekkoon ci ay tuuti réglage nii di foog yéen bu leen defee ne gars yi dañuy liggéey preneur de son bi day fo cadreur yi dañuy foog yéen kenn liggéey si normal gars ñu ngi caaxaan mais bis buñ téyee liggéey bi normal ngeen gis lu doy waar ak suñu film abonel partager aimer yokk suñu doole parce que tey jii yéenay suñuy kattan yéena ñuy dooleel seeni daw lañ dëkk Sénégal liggéey bi métti na méttiwul mais boo ngeen si jàppee aimer partage aimer parce que yeneen bi ñu tekki teral ndey ak baay affaire yi daal mu ngi noonu. jërëjëf oh. waa Afrique. waa monde bi waa ñëpp waa ñëpp kon ni ko wiis xaali rek ñun wax yéen pare gu ñu des na lu bari ànd ak see ànd ak seex sunu waa suñu film suñu film <laughs> waaw li ngeen def rafet na trop ndax yéen nañ am moo leen ngeen ñëw jàllale baa mi dem mais defoo leen loolu képp ku ñu seetaan wala képp ku jël téléphone am seetaan suñu seen suñu film nga abonné yàlla la yàlla may xaalis bu bari nga am téléphone bu baax ba ngay mën a jàllale suñu kontaan des na nag lu bari de ñëw gu ñu lii kese bu tëb si yàlla di ngeen gi saar yeneen yu gën a garaaw wasalaam acca waaw di baal ñëpp ak comme ni ko waxe rek partagé leen aimé abonné rek Sénégal jëm kanam de waxkat baa ngi waaw buñ la diggee fukk yi la war a jox si boo si jàpp dégg seen tool naa da ngay taal bu baax. damay dégg sama maam ne loo war a toog boo i waree toog rafetal ko. ndax ku gis lii xam na lii du jeexil teel. parce que ku jàpp si benn ba ñaar war a ñëwaat. ñi koy seetu war na leen bàyyi xel. ñuy nuyu ñëpp di nuy waa senegal di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa Mauritanie gi nga xamante ne di nuyu waa Saint-Louis gi nga xamante ne. seen film. di nuyu waa Ndar di nuyu samay mag di ñaanal sama mag bi nga xamante ne dafa génn àdduna ak bépp jullit yàlla xare ko aljana di ñaanal sunu xalifa Doudou Mame Ndione mu yàgg bi ak bépp xalifa bu nekk si réew di ñaatal ñaanal suñu njiitu réew di ñaanal di ñaanal Cheikh Mansour yan bi nga xamante ne yàlla moo ka yan si biir Yoff yàlla na ko àggal eh, eh, jàpp ñaanal sama sëriñ may ñaanal sama maam Baye Abdoulaye Diop yàlla na yàlla yokkal leeram di ñaanal gaay yow yàlla yàlla nga ñu may doole jikko yàlla maa ngi lay ñaan jël bi nga xamante ne dañ ko war a wuutu buñ ko téye yàlla nañ ko téye si kàttan yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ñu musal si teewu mbetteel amiin waay yàlla lay ñaan yàlla nga ñu may lu ñuy suturloo yow yàlla yàlla nga ñu nëbb te yàlla nga ñu sagal te yàlla nga ñu musal ñi nga xamante ne ñoo fi ñëw doon ñu jàppale ku si nekk ñu lay nuyu ak sa di la ñaanal équipe technique bi yëpp li ko wiis waxee dañ doon fo rek ñun dañ doon bi at kii say diit barke yu gaay mbokk yi euh, waaw kon euh, mani kon di leen jox euh, dig daje di leen jox rendez-vous gis ngeen troupe njëw mi ngi noonu yoof àndoon ci ak ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy sunu film ba nga jàll xaaral bi kon loolu waaw kon loolu kon loolu dafa nekk loo xam ne bu lëg lekkee olom acco ñu déglu waay bu lëg lekkee olom naka gërëmee coy mm. ñu nekk dëkk bu bu sell bu tedd mu nekk yoof nekk dëkku diine ñëpp séq ko nag di tàllal loxo yi borom doom bi baati saltige day ndey jëréew yi ba fàttaw ñu kenn ñu ngi tàllal loxo di ñaanlu di ñaan tamit képp koo xamante ne rek yaa ngi doon seetaan di bége ñu ngi lay tàllal ñu lay tàll baal <laughs> baal kii dem <laughs> li mu yor moo bari <laughs> ñu ngi lay tàllal dina la sàkku loxo yi di ñaan di ñaanal ñëpp kontaan nañ bu baax di ñaanal ki nga xamante ne tamit tey jii moom mooy Seydina Issa yàlla teg ko fi mu nekk ci mairie bi yàlla na oyof ci kawam yàlla bu yen bi diis sanga bi mm-hmm. di ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr mm-hmm. moom mi nga xamante ne tey bu lëkk lekkee olom naka gërëmee coy loolu dëgg di ko ñaanal gudd fan ag wér mm-hmm. lépp loo xamante ne nii weesu nga ko rek li nga teg sa bët yàlla na yàlla na gën si li nga weesu ak ki nga xamante ne tamit moom mooy Moustapha Tall. doomu Jobbe Cissé. waaw Alaaji Job uh, waaw Jobbe Cissé Jobbe Cissé mooy mooy waajur mu jigéen. waaw Alaaji Omar Tall mooy mooy mooy papa. mooy ñu koy ñaanal gudd fan ak wér. ñaanal laa leen doomi Soora Sarr si Biram. Biram Biram Biram waaw Biram. Eh, eh, Biram ñu eh, ngi Aliou Paa Ndiaye Paa Ndiaye. Ndeysaan Père Idrissa Ndiaye. Ah, ah, ah, ñoom ñëpp dañuy jàppale dañuy jàppale ak ak gaaw daloo ci xamul daloo ci xamul. waaw ñoom waaw ñoom ñëpp xaaral ma ñëw rek. koo jëm ñoom ñëpp Souleymane ba pare jox ma boisson. ñoom ñëpp dañuy jël ah, ah, li nga xamante ne moom mooy lien bi di ko partagé waat te ñoom ay kilifa lañ. dëgg la te ñoom ñu ngi seetaan ñu ngi jàppale. kon scène bi ak li nga xamante ne moom mooy sunu film. nañu ko jàpp ñun ñëpp te abonné si tax xam ne li leen dencal moo ëpp lii fuuf. si kattanu yàlla nan tabaski si jàmm ak salaam rek. waa Géem sa Géem fàttaw ñu leen maire yaa jay ndeysaan yàlla sa jàmm yàgg jër ngeen jëf kontaan nañ mais eh, mais nag technicien yi. Eh. technicien yi merci waaye. technicien yi. ka nekkoon yoof ba xëy gàddu saf saag la tabaski ji. waaw la ñëw indaaleel pooj. yal na leen yàlla defal jàmm ñoom. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom directeur bi déedéet ah, déedéet d'accord ma d'accord ma taali taali amalu na yaay dañ rondu ka tabaski ji bala ñëw indaaleel foojab yàpp xam nga qualité de ba tabaski jot ku dem ba ree sam ah? ba lekkale indil ñu foojab yàpp qualité de son bi am fii ak qualité de image bi boo tuddoon directeur bi da ngay xëy gars naan la sali seen waa ji doo moom ak doo ma xam nga la moo tax ñu war a ah. dama gis benn xeetu image boo xamante ne nii su ma géntee àjjana rek laa koy gis ya ilaaha illallah waa ka yow eh ata te agression ba nu mu demee woon su ma géntee àjjana rek laay gis benn xeetu son bi <laughs> eh li ngay wax la benn eh, xeetu image bi eh, eh lu booy pousse leen bokkoo leen si affaire bi te yéen a ngi feeñ am seetaan rek kon xam nga lan mooy problème bis ah, ah, xaara kii ah, ngir yàlla dama leen ko ñaan Sénégal kii lii ko lii lii moo dàq li muy kii kii géewagul kii saa dañ ay agresseur dañ ko kojoon quoi dama bëgg mu may damay bañ samay noon di wax barke yi rasulullah li ma leen wax histoire dara la dafa am ay agresseurs yu toog ko ñu damay bañ sama doon wax may ñu si tuuti bu ko may ñu xanaa mooy tëj waaw mooy tëj dan doon dama doon dem ay jàng jàngi jàngi jàngi jàngi jàngi àll Diop Pikine waaw ma ànd ak sama ñaari xarit bi ñu àndee ñu ñëw ba ñu ñëw ba Pikine ñu ngi fa àgg deux heures vingt waaw ñu gis ay jàng rek bas bi di riir rek ñu wàcci bin wàccee cëpp si jànga yi ah, fay taximaan bi ah, bin ñëwee jànga yi fa doon dégg bokkul ak jàngi àll jóob ma ne sëñ bi fiiru du jàngi jóob bi mu ne ma déedéet xoolal bas bële ma ne ko bas ba mu ma bas bële ma ne ko waaw mu ne ma foofu la jàngay am da ngay jéggi raay bi dem ba si passerelle ba da nga jàdd bi nu wàccee maak kolo euh, maak euh, euh, papi ñu ànd di dem di dem di dem bay àgg si ginnaaw raay bi parce que bi ñuy àgg foofu trois heures moins mm-hmm. avant ñuy jéggi tali bi rek waa ji toj bitel. la ilaha illallah. ne taxaw leen. a oh, tojal la mbaari. waaw boobu ñu ngi sol suñuy jesneer yu baax. toj sa mbaari mu tas bi mu ne bi mu ne bi mu ne bitel bi tas kenn ki génn paaka ñu ne taxaw leen génn leen li ngeen yor. <laughs> ma ñaxatooy xib gam gom gi commencé wàcc sama yére te boobu guddi la. waaw gom gom ma génne sama sama poset joxe. waaw papi génne. lu tolloog 6000 ah. joxe. koloo génnee joxe. ma ne oh, eh eh eh kon leen. mu jël portable yi commencé. na ma génneel li nga yor li des sa poche. ñëw ba timma ma ma gis xotti biteel bi ma xam ne lii xajul si nit. déedéet déedéet xajul si doomu aadama. ma génne sama portable sama loxo. waaw. ma génnee portable bi. waaw mu ne ma loolu nga dese ma ne ko waaw ne ko am. waa ji nangu ma ne ko baal ma càmmañ. agresseur <laughs> bi nga wax baal ma càmmañ <laughs> si ku lay agressé waaw ma ne ko baal ma càmmañ bi waa ñu ne ma amul solo tourné xool ma sama bi yëre mu xam ne kii dafa tiit ndax ndax baal ma càmmiñ bi si ku lay agressé mu ne ma kaay loo wax ma ne ko dama xam ne maa ngi la koy jox te loxo bi laa la ko war na <laughs> waa ji na ma téyel waa ji delloo waat ma portable bi delloo ñi ñu àndaloon ñëpp seeni portable mais nag boobu euh, guddig yonante bi lañ doon dem kooku booy dem si moom kenn du la neenaan di profité waale rek di nuyu ñëpp ak ah. Alla Diop ak Mouhamed waaw ndeysaan Mouhamed Mouhamed Mouhamed Alla Diop di waajal lendemain tabaski di waajal foofu waaw maire yaa jay tamit di ko gërëm ndax ku ñëw fii da yaakaar ne fii la usine fëriñ bi ne parce que li tax ñu yaakaar ne usine fëriñ baa ngi fii kuy jaay soo beñe téeméer kon xam nga ni kooku ko <laughs> liggéey lay fo Sall da ko war a audit xool fa lay jëli fëriñ <laughs> <laughs> ah. day maye kii dañ ko war a audit. jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp